marché Sam li fa xew jaaduwul préfet xam na ni ah dama am loo xam ne dañ ciy waxtaan ngir bëgg rek jàmm am ci dëkk mais leer na leen ne cantine yooyu su du woon waxtaan ak préfet ak di déglu ay kilifa di bàyyi xel man maay dawal oto bi koy toj parce jaaduwul. mënuloo jël ay commerçant nga jël leen fenn def arrêté ne interdiction de toute activité marchande sur le site du marché Sam di fa indi yeneen commerçant parce que ñoo ëpp xaalis cantine waru fa am te du fa am nag bu ñu dinañ taaxirlu jaar ko fi ñu ko war a jaar ba mu jóg fa parce que cantine du fa am parce que waru fa am et j'interpelle l'urbanisme parce que urbanisme ñoom ñoo def sommation kiy tabax cantine yi ne ko arrêteel tabax bi soo ko arrêté wul dinañ la teg les sanctions les plus extrêmes prévues par le code de l'urbanisme keroog bi waa jaxaaw ñëwee sama bureau ne ma liggéey bi tàmbaliwaat na ci seen kanam laa jël sama téléphone woote ki jiite urbanisme ne ko ndax yaa autorisé lool mu ne ma yëgu ma ko mais su dee yëgu ko. te mu ne woon entrepreneur bi soo arrêté wul daañu la teg daan yi nañ ko teg daan yi su dee nag daf ko yëg mu ñu boole ko ak moom daal leen waaw parce que njublañ dafa war a jeex si dëkk bi waaw njublañ dafa war a jeex si dëkk bi waaw su fekkee entrepreneur bi dafa am ñu mu jox avance c'est son problème parce qu'il n'a pas waaw le code des marchés dafa am nu mu organiser woo dafa am nu mu war a tëddee suñu yoon newul ci loolu mais population jaxaw maa leen ñaan ne leen da ngeen di dal parce que préfet man tam am na lu ma ñaan bu boobaa su commission ado hoc bi dajewaatee ba ñu waxtawaat na waat mbir yi lañ ca génne mën na am mu yombal saafara bi mais kenn ku ci nekk dafa war a xam ne askan wi la ñuy liggéeyal. gis nga koppar yi ñuy lijjanti bariwul njariñ ndax dee rek billaahi wallaahi wa taala jëlloo moomul ci dee rek ngay mujj ñi lay tiim di wax nit ku baax la woon ñu ci bari xam nañ li ñuy wax lu ci bëri du dëkk kon pourquoi ñu di ko def nañu ànd ak dal suuf yi ñuy jël di séddoo nañ ko ba bàyyi suufu jàmbur yi ñu dëkk fàndeen ñu dëkk feneen parce que am na ñu laaj loolu ñun jëlloowuñu suufu kenn suuf bi askan wi ñoo ko moom Ceesuwaa bu nekk am nga sañ-sañu am foo dëkk mais dañ koy organiser démocratiser ko jaar ko ci yoon am na ñoo xam ne dañuy soxla ñëw liggéeyal dëkk bi di soxla kon bërëb ñu ko def ñooña war nañoo mën a réfléchir ba seet fa mu gën a jekke ñu defe ko fa looloo waral ñu xaarandi dans le cadre du plan de développement de la ville bu ñuy am xam-xam ak waa askan wi waxtaanee ba tëral plan de développement bi ñu ni fii lañ bëgg a jëm ànd fa bu ko defee mécaniciens yi place ya ñu identifié ba waxtaan ak environnement pour ñu jox ñu ko pour ñu yóbbu leen foofa mécaniciens yi daañu leen fa yóbbu parce que loolu liggéey nañ ko ba bind ko ba joxe ko mais loolu su génnee ñun leen bërëb bi la ak yeneen ak yeneen ak yeneen.